aca jërë ngeen jëf uh, yéen sunu mbokk internet bu 221 people ñu ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di dellowaat ku nekk sa wàccuwaay amaat li di kontaan ak mbégte bu baax a baax ni ma koo faral di def ak kilifa yëpp tey ma fas yéene dalaat beneen kilifa di kàngam naam gan la ci site bi ndax tey mooy si ni njël benn émission ci site bi di 221 people kooku mooy Serigne Fallou Lo saxaabatul rasul ñoom nañ fas waxtaane ci ponk yu fasatiko waaye dinaa ñëw ci ñaan bi nga xam ne mu ngi koy def ak taj bi waaye dina ñëw ci RV Koukandé bi am na waar lu mu wax xaar leen vidéo bi topp leen ko ba jeex sëñ Fallou loo ma bala nga nuyoo mbokk askan bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. yéen waa 221 people maa ngi leen di nuyu di nuyu mboolem jullit yëpp. jërëjëf nuyoo ba gën a matale ak ba gën a sell. Mhm. jërëjëf jërëjëf sëñ Fallou ñu ngi lay fay bu baax a baax di lay kontaane comme ni ma koy def ak say naataango tey nag daam foo xam ni foo laa bëgg a comme ni ma koy def ak ñëpp euh, maam foo xam ne dinaa fa jaar ak yow sëñ Fallou bëggoon naa xam fan nga jàngi alxuraan ak fan nga gëstu. loolu dinaa ci ndax alquran karim ñu ngi ko jàngee ci kër sëriñ Sohaybu moom Seexul Xadim fi leen jàng alquran mën naa ne bi ñuy jàng alquran it danaa ko far di nettali ci émission yu bëree bëri ñaan dañ koo donn tëbuñ tëbuñ di tëbuñ tëb rek di ñaan dañ koo donn dañ koo judduwaale loo xam ne say maam ay maamaat dañ ko daan def loolu boo ñëwee da nga cee am noonu loo xam ne soo góorgóorloo tu suñu borom mën na laa defal tawféex mm-hmm. bi ñu nekk sëriñ Sohaybu di jàng alquran am nañu ko fekkee ñu ngi fi booba dongo yi dañ daan def kuy yalwaane soo ñëwee ñu bindal la aw kayit defal la ko ci pot bi soo yalwaanee dañ lay sarax lu bari nga xam ne mujj yi dongo yi dañ daan ñëw di ma ko bindaloo booba dongo yi ñu ngi daan jox bekk suukar ak miskit loolu moom laa daan ndekkee di ko def ci ataaya ci ci ataaya ji may naan kon defe ñaan moom bi ñu jàng alxuraan lañ lañ lañ lañ sentir suñu bopp ne ñun am nañ ijaaba boobu léegi nag dañ koy sàmm jàng nañ question question bi alxuraan ba wattu ko jóge fa dem ndar jàng xam-xam jóge ci leen yaatal suñu gëstu nag dem ci àll bi di gëstu xam-xam. xam-xam ni ma ko mën a waxee mooy dañ koy tërbiya gëstu ko asraar am na nono waaye am na loo xam ne dañ koy jàng ba xam ko soo ko jàngee ba xam ko loolu mooy waral képp koy jëflanteel mu gis ci résultat ñun ñaan gi ñu ñaan ñetti xaaj la lañ koy xaaj xaaj bu njëkk bi mooy dañuy ñaan ci alquranul karim benn bi mooy sunguf bi ci des mooy dañuy xaatim dinaa leeral yu bari ci biir yooyu. jërëjëf euh, sëñ Fallou Lo ak euh, kontaan naa ci yow gannaaw euh, wax nga nit ñi yow yaay kan fan nga bokk ci fan nga soqeekoo foo jànge waaye am na foo xam ne fa laa bëgg a tàmbale sëñ Fallou yow ci lan ngay ñaan comme que ku jóg léegi da ngay ñaan. xam nga ku jóg ñaan waaye ñaan moom defe naa ne dafa wuyu turam ku ab jullit rek mën ngaa ñaan ndax borom bi subhaanahu wa taala moom la ñuy ñaan dafa wax ne dafa wax ne dafa borom daa wax ne adduhoonii astajib lakum ñaan leen ma ma may leen mhm. kon ko ëpp jullit mën ngaa ñaan waaye dafa am ñuy wooyee sayxul asraar ñi nga xam ne ñoom la nit ñi doxalee aajo yi seen diggante ak seen borom ñoo ñu bàyyi seen yitte yëpp guddi ak bëccëg di tërbee turu yàlla ba suñ borom may leen ak may mhm. dama ne ñaan ni ma la ko man a misaale nit ñi ñu xam ko mhm. mi ngi mel ne nit ki am compte banque am ko am compte banque mooy soo ñëwee ma bindal la chèque banque ba am naa fa xaalis chèque bi mooy xadim bi may bindu jox la ko. Mhm. waaye soo demee sa banque ba soo fa amul xaalis doo doo retiré. Mhm. ku amul ab cër ci yàlla lépp loo ñaan suñu borom da ko nangu. Mhm. li li liy yàq ak ñaan mooy ñàkk lekk lu lew di def lu araam di wax lu dëgg lii kuy sàlloog moom boo ñaanee yàlla du ko nangu. ñaan nag fi leen ko fi leen ko fekk waaye dafa am ay sart. sart mooy yow miy ñaan nga sellal sa diggante ak sa borom. xam ne lii ngay def nii ab xam-xam boo xam ne da ngay nit ñi te yàlla rek tax. loolu moo moo moo moo moo tax a jug jàmm bi ñun nag defuñ ko fort de commerce ndax Seexal Xadim suñu yaakaar tey ëllëg ak fi ñu bokk Sëñ Tuubaa moo ñuy teral mën nañoo bañ a génn fa nekk di tedd loolu moom yàlla defal nañu ko suñu duggee ci ñaan it dañ koo donn suñu ñu ko mhm. bañ moo tax li ma gën a neex ci àdduna man mooy faj aajo nit mhm. faj aajo nit man mooy li ma neex ci la amee plaisir dañu ñaanal ko am di ñaanal ko amut alal àdduna taxuñu jug waaye nag dañ ko sakku mukk ndax ñun sëñ Tuubaa lañ dëmmal. bàkk ba daanoo dafa leer jërëjëf euh, sëñ Fallou am na fu ma bëgg a dugg laaj la ndax xam naa dina dinaa sawar sa turandoo mel ma di sëñ Fallou bu mag ba moom am na lu mu jëflante woon ak naar mu di góom boo xam ne amoon na ko gis nga ñaan ba mu ca defoon. kon lii ma lay laaj su ma la ko laajee war naa cee am yàqin ne di nga ci am loolu la ci yàlla dénk ñetti feebar laa lay laaj mu di hémorroïde cancer ak tële ñetti feebar yi lan nga ci mën. kum neex euh, garab yi mën nga koo jëfandikoo kum neex am na ak fas goo xam ne la ko jox day seey dégg nga cancer it dañ koy faj képp koo xam ne da ngaa cancer soo ñëwee nga ñëw ne damaa cancer indi indi hôpital hôpital bala wax ne da ngaa cancer indi yu ñu xool ko. soo ñëwee ñu faj la nga dellu fañ la waxee woon ne da ngaa cancer ba xam ñoom de neen na mi ngi fi am néew fi. nan nga fajee xam-xam bopp la. Mhm, dañ koy suñu xam suñu xam suñu xam-xam bopp la. dañ koy waaw suñu xam-xam la. Mhm. ku ko juddwaale mënu ma ci dara waaye kum dab mm. boo ñëwee fajal la ko képp koo xam ne da ngaa néew doole si néegu sëy mm. waxuma la ma jox la ay garab yoo xam ne day doon tay tay ak suba suba déedéet man man mooy la nga ñàkkoon ma joxaat la ko suñ jëflantee man lool loolu laa man li ma nit ñi it ñi ngi woote fa ne di wax waaye dañu xam ne vidéo yi ma daan njëkk def ak yi ñooyam mm-hmm. feebar yi ma lim moom laay faj yi ma limut fajuma ko ñaan daal mbooleem li aajo nit ki yi mu am ci diggante ak boroomam dañ koy faj mm-hmm. dañ koy faj te ñaan moom ñaan moom dama cee am ak may am naa ci yaqin wul nañ sama borom it mi ma ci defal sutura te loolu ci ak baaxam rek la. jërëjëf acca balaa maa jàll ci feneen sëñ Fallou Lo euh, duñ la bëggee euh, am wala ñu jot la fan lañ lay fekk. man euh, maa ngi Dakar samedi ak dimanche waaye samedi ak dimanche yooyu nag du du samedi ak dimanche rek ma may ñëw ndax amu jot. Mhm. da ay liggéey jàmbur di ko liggéey. Mhm. waaye lundi bu jot ak alxames. maa ngi asalem Touba dina ubbi lundi ak alxames maa ngi Touba asalem dina damay ubbi koo mën a gis ñaari bis yooyu mën nga <laughs> loolu du sax <laughs> waaye ku woote rek des des na leeral bu soob yàlla insha allah jërëjëf aja damay ñëw ci ñi nga xam ne ñaanlu nañ ba sonn takk nañu ba sonn ngay gis kenn nit euh, mu téye benn loxo ruugoo ci lu tollook ñeenti jaaro beneen loxo bi mu sol ci ba mu fees dell waaye pour ñu mu gis njëriñ sax euh, problème lay doon loolu it ñu ñëw ci loolu yi loolu yi dinaa ci wax dinaa ci wax lu am solo ndax euh, ñaan dafa doon mbir mu mbir mu jafe muy dafa laaj terbiyewu laaj nangoo sonn laaj liggéey turu yàlla ba nit kii bu njëkk sax mag ñi daanoon def ne soo duggee seen kër dana la tibbal suuf jox ma sa ajo faju léegi defe naa ne faj aajo yumutul ndax nan daan faja ajo aw yoon la mooy lekk lu lew di wax dëgg teel rek tax di jàng alxuraan saa su ne liggéey tur yàlla di liggéey salaatu ala nabi ba sun borom aajo ju dugg sa nopp bi faju loolu mooy faj aajo mhm. waaye aajo du ne da bind rek jox nit loolu ku ne mën na ko ku ne mën naa xëy mën naa mën naa xëy bind dafa am seen yenn suñu maam ma tudd diplomatie du ma may may tudd tur wi ko suñu maam la euh, euh, moom ci boppam sëñ Tuubaa da ko waxoon ne ko bàppu xalima gii yor ci laa defal def baatu kun laa la ci jox def ak dindi ngay def di dindi ci xalima gii mhm. mu ci daan def daan dindi loolu dañ ko donn ñaar ñaareel bu mooy ñaan gi ñaan gi nit a ngi takk ba sonn du am dara. nit nit nit sol ay jaaro du am dara. bëri na xam nga lu ko waral. lu ko waral bari na sëriñ soo xam ne xaatim dañ koo mën day damm te xaatim moo gën a gaaw ci tëj nit. ba pare dinaa wax sëriñ si ne leen. Mhm. waxuma la ki muy tëj. waaye bépp sëriñ boo xam ne yaa muy damm bala ngaa faatu da nga doo doo doo demaale ay bët da ngay gumba. Hmm? te man te mën ngaa lafa ñit képp kuy bind xaatim muy damm xaatim wurta dam day tëj nit léeg-léeg nga jëflante uh, kar kenn ne ko won ma jaarom bi waaye bu la wanee jaarom bi rek takk moo tax man képp ku may ñaanal lépp looy sangoo da koy bàyyi looy takk da koy bàyyi ba ma jëflante ak yow ba noppi kurus ku munta tijji amut ñun dañ lay tijji xam nga ab néeg bala nga fa dugg faaw nga nga jël caabi ubbi bu noppi nag dugg dugg jax-jaxee ko mm-hmm. xool xool wërsëgam mm-hmm. xool xool lu ko am xool rawaanam xool bi duwam xool sarax xam xam sarax yi dañ koy xool. Mm-hmm. ndax fi ne sarax bari na ñii reyloo ay gileem ñi ay nag ñi nangam tolloo du seen sarax seen sarax sax ma naa am ab sondeel la boo xam ne bu ñu génnee seen seen bunt ubbiku day xam saraxam. Mm-hmm. Euh, sëñ Fallou sa jaaroo ci lan lay dox. sama jaaroo moom boo ko takkee ma jox nga ñëw takkal léegi jaaroo ma jox ko jaaroo nga naan posen nga naan da nga koy loolu lekk mu rees bët bu ay du man dara day ubbee. Mm-hmm. day day jañ dafu ak jalbu la sama jaaro boole daf dafu ak jalbu. la sama jaaro boole. waaw li njëriñ lépp xëju ci émission bi waaye loolu rek lañ ci wax. Euh, ma jaar la ci beneen ponk njëkkanteeg waxtu wi mbirum kaso de prison. kaso moom liñ liñ ci am ku ci nekk dañ la cay te liñ ci am ku ko jëfandikoo doo dugg kaso di jëflante ñooñu ne ci réew yooyu di jaay yooya du ma tudd tur xam xam ngeen ko waaye dañ ku ko jëfandikoo ndomb ak maam ya la dañ ko donn mooy dàkkum ndaam dàkkum ndaam googu ki koy liggéey dàkkum ndaam nag bari na koy wax waaye ku yaayam sant loo baayam sant loo wurtu liggéey dàkku ndam bu ko liggéey day toj nee naa leer ci dàkku ndam dara dàkku ndam liggéey buñ ko daan liggéey benn araf bu ci gëmm. del si foofu nga ne ku sant sant sant loo ah, du ko liggéey baayam sant loo a liggéey dàkku ndam bu ko liggéey day toj ndax la te boo ko liggéey koor ngay yendoo koor ngay yendoo ñetti fan yi woor koor nga yendoo dàkku ndam bu njëkk boo ko mësaan liggéey mag ñi bu ko mësaan liggéey xam nu ñuy def hmm. ba fi mu nii boo ko bindee benn araf bu ci gëmmee soo ko takkee ci ak déem déem gu ñor. Mm-hmm. soo yëlebee soo yëlebee. Mm. soo yëlebee doom yi day wadd nga xam ne am na araf bu gëmm nga gëmmarti ko ak waaw bu gëmmee wala miim nga gëmmarti ko soo ko takkee. Mm-hmm. soo yëlebee dara du wadd soo ko takkee ci am xar boo tiitee ba ba ba ba lu fetal du tàkk moo waral ne ndomb gi baax na. mu ngoog acca euh, foofu leer na nañ ak euh, Serigne Fall lool ni mu doon faram-fàccee ponk yooyu ma ko doon laaj waaye dama ñëw ci yeneen i laaj mu bokk ci lii di lan mooy lii di kort ak rawxaan. xam nga euh, dafa am ñu koy liggéey ñoo xam ne du ma tudd seen tur ndax bu waa doon te duñ ñu ngi ko daan def ci ngi gis wala xobu guy wala yu mel noonu nga xam ne dafa am ay xam-xam ñu koy booleel suñ ko defee ba noppi nit ki day ngiis xob yi ni muy ngiisee garab ga di dee noonu lay def di dee. loolu nag dañ koy sepp dañ dañ dañ koy seppi seppi loolu moo nit ki balaa mën a ñaan da ngay jàngee xam-xam bu ñuul soo ko jàngee ba ba ba wayu ñuul yi dañ ciy def. Mm-hmm. yow bu ñu defee nit nga mën koo dindi. moo tax ñun mboolem xam-xam yi asraar dañ ko pegg dañ ko pegg duñ ne pegg nañ lépp ndax yàlla rek pegg lépp. wa faxu kullu si ilmin alimin mm-hmm. yàlla rek moo xam lépp ñun xamuñ lépp waaye am na lu ñu yàlla may. waaw loo xam ne ci liñ jëflante jàpp ñun daal ku ñu jëflanteel. Mm-hmm. même soob na yàlla dañ ci gis dañ ci gis résultat te aajo yi du fii moom loolu leer na ma. d'accord xam bi nit ñi di waxtaanee lan mooy rawxaan. xam nga rawxaan léeg-léeg nga gis nit ñëw ne damaa takk soxna damaa amoon amatuma ko sama buntu wërsëg daa tijjee ko soxna moom seen biddigu bu àddut bu àddut mhm. li gën a sedd ci lim lay def mooy mooy mooy mooy mooy xañ la wërsëg mooy mooy li gën a sedd man ngaa faatu mën man leen mën na laa dal waaye loolu dama ci wax ne nit ñi seetkat yi dañuy jumloo nit ñi ndax léeg dan lay seetal rek daan la biddiw bi ànd na la wala siis la man damaa dàq loolu nit ki biddiwoo mën nañoo ànd ba nopp te rawaanam bëggantewul mën ngaa seetal nit ki biddiwoom ànd. Mhm. waaye rawaanam ànduñ. moo tax moo tax ab sëy balaa baax rawaan day ànd biddiwu ànd boo ko boolee sëy bi doo doo ko mën a jur résultat jur njaboot jur alal ju bari waaye benn bu ci manqué rek benn benn benn benn ba te jigéen nit man bu ma ko xoolee waxuma la seet waaye xar kanam rek ku ma ci xool xam ba am nga wërsëgam déet foto xam ba euh, lan xam ci kii di Kounkandé mi nga xam ne moom la ñi di coowal boobaak léegi mu di seen mbokkum sëriñ Kounkandé du ma ci wax inna ankaral aswaat la xam hamir maa ngi sant ñëpp di baalu xaq ñëpp di dénk ñii ñaan daal maa ngi leen di dénk ñuy bari julli ci yonent bi sallallahu wa sallam boo dee nit ñi dina mën a faju seeni ajo dina faju te ñu sellal seen diggante ak seen borom di lekk lu lew képp koo xam ne yaa ngi lekk lu lewut booy dee doo dee yàlla nga bi yàlla. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu